ci waxtu jot fii ci mosquée Mariama Niass bu Patte d'Oie jullit yi di jóge fépp ngir rekk teew si ci bile julli ab waxtu tegu si imaam bi daldi yég yegg si julli bi mën na tàmbali. ginnaaw buñ jullee ñaari raq yi cheikh Mouhamadul Makki Ibrahima Niass daal di rekk jublu ci xutba bi ci bile xutba mu daldi di si woo jullit yi ñu daal di delloo seen xel ci yàlla. mooy na tudd yàlla tudd bu rëy. tudd bu mag doo xam ne yàlla dara gënu ko màgg ne jaamu yàlla yëpp dafa am limite waaye moom tudd yàlla moom amul limite. moom doomu Cheikh al Islam bi daal di rek ñaan jàmm ak salaam sax si biir Sénégal. yàlla yàlla aar Sénégal. population boo xam ne. population boo xam ne. bàyyi tagg na leen. bàyyi tagg na leen. Sénégal lu ko ko dencal. ko dencal. li manqué rek mooy. li ñu dem def suñu wari gar yi. ñu dem def suñu wari gar yi. suñ defee suñu wari gar yi. suñ demee koy def lépp yàlla yëpp. dëkk yi nga xam ne ñu ngi dem di ko jéggaani yëpp. yàlla may may na Sénégal loo xam ne mayut leen ko. ci diine ak ci xam-xam ci diine ak ci xam-xam. ak ci gëm yàlla ak ci gëm yàlla mu nekk ñaan yi nga xamante ne kii di Pape bi Bitèye ded na ko ñaan jëmle ko sax si ngóor gu bees gi. di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm Sénégal yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ba ñu teewee ko ay ati ati at si si mu ñu koy jiite te ñu fekkee ko incha allah. leen di ñaanal yàlla defal leen ndam si mission bi nga xam ne moom la leen yàlla teg. ren nag Sénégalais yëpp ñoo daal di màggalandoo. bile julli korité mu nekk li nga xamante ne ñu bëri. daal na nañ ko rafetlu.